أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وعبد الأمانة ونصر الأمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد مكي غنا بنيو سنتي الله بجولي تشونتي صلى الله عليه وسلم سين قريب سين سوبي الإمام الأستاذ إمام بابا كترامي موي دلو سي دي لين وقتانال وقتانو دين تا تاي وقتان وي ني ورا ديف ني موغي اديو تي زلات في الكنيزه والبيع جاي آه، جولي تي إجليس ak bayan mooy bayan mooy place yi nga xam ni ci la juif yi ñoom itam di jaamoo seen yalla yàlla jamu kayu yàlla yi zalaatu fil kanisa wal igli wal wal bayan julli ci église ak julli ci jàngu jàngu bu demee ni comme yu juif yi wa qad salla abu musa al asari wa omar bin abdul aziz fil kanisa abu musa al ashari ak omar bin abdul aziz julli woon nañ ci iglis walam yoro assoab te gisuñ ci benn jafe-jafe jëlee nañ ci hatta ibnu sarin jëlee nañ ci hatta fa salaatu fiha baza qaala buxaari nee na julli ci lu garaaw la buxaari yi nee nekkoon nañ te jëlee ci ibnu abbas mu ne julli ci lu demee ni jullikaayu juif yi ay bay'a ila bay'atu fiha tamazil lu dul néeg boo xam ne nii euh, lu dul jaamookaayu yàlla boo xam ne netaal nekku fa bu dee église bu dagana jullee pour jullit ñi na nekk église boo xam ne netaal benn netaal nekku fa waaye bu fekkee ne place la boo xam ne ci place juif yi la itam fa ñooy jaamoo yàlla na nekk place boo xam ne nii amul benn euh, netaal boo xam ne mu nga fa wala qad kataba ila omar min gis nga boo ñëwee ci ali imran da nga fa fekk euh, délégation bi nga xam ne ñoo ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa te ci ali imran borom bi subhaanahu wa taala di ki wax di ki wax ba quatre-vingts versets yoo xam ne yépp ci délégation najiraan boobu euh, ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi sallallahu alayhi dalaloon leen ci jàkkaam ja di ñëw nag di discuter ak ñoom euh, mu ne bindoon nañu Omar ci lettre boo xam ne mu ngi bàyyeekoo Najiraan ne ñoom daal amuñu place bu set te amuñu lu dul place bi nga xam ne fi la eh, juif yi di jaamoo yàlla mu daldi leen bind delloo leen lettre ne leen indahoha bi maa i wa sidrin eh, nettoyé leen ko ci ndox ak déem ndoxum déem eh, masalan xobi déem yoo xam ne nii dañ ko jàmb nettoyé leen ko lool bu bu ngeen paree wasa loo fiyaa ngeen julli fa ci limaamu abi hanifata ak safia yi ah ñu ne ñoom sib nañ sib nañ julli ci place yu demee noonu imaamu abi hanifata ak limaamu safia yu ne al xawlu bi karahati zala salaatu fii mutlaqan ne daal wax nañ ne ñoom julli ci place yi demee noonu dañ ko sib ci luñ joyal bu ñu paasee ci julli ci palaasu yi nga xalaas yi nga xam ne mooy palaasu juif yi ak palaas yi nga xam ne mooy église yi di palaas yi yi chrétiens yi di jaamoo yàlla léegi ñu ngi jàll ci asalaatu fil masbala wal majsara wa qaariatu tariq wa ihtaanu l ibil wal xamaam wa fawqa zahri baytillahi l haram julli ci poubelle ak julli ci betuwaar ak julli ci kaw yoon ci digg yoon ak julli ci e, fi nga xam ne mooy daajub gëléem foo xam ne da dafay fanaan ak duus ak kaw néegu e, néegub yàlla bi mooy kaaba gi julli ca kawam ci kaw terrasse bi noonu mu ne yii yëpp du dagan julli ci poubelle du dagan julli ci bétuwaar du dagan julli ci diggu yoon du dagan parce que julli ci diggu yoon boobu lu tax du dagan ku nekk dafay romb kon boo fay julli am na noo war a def pour julli googu mën a baax ak julli ci daajub gëléem ak julli ci duus yi du dagan ak julli ca kaw kaaba ga kuy julli ca kaaba ga dangay nekk foo xam ne nii dangay leeroog moom wala nga julli ci suufam jëlee nañ ci saydu ibnu jubayr mu jëlee ci daawuda bin husaynu mu jëlee ci ibnu omar te bu ñu waxee ibnu omar mooy abdullahi ibnu omar radiallahu anhu nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne nahaa an yusalliya fi sab'i mawatin mu ne yonent bi salallahu sallam tere nanu ñu julli ci juróom-ñaari béréb juróom-ñaari yooyu bokk na ci fil masbalati muy poubelle sib nañ ku fa julli wal majsarati ak lu demee ni bétuwaar ab bétuwaar sib nañ ku fa julli wal maqbarati ak cimetière cimetière it kenn du fa julli ak digg ak duus kenn du fa julli ak daajub gëléem lu tax gëléem fu mu fanaan kenn du fa julli gëléem dafa bari man yu te gis nga fu ñu yeew xar yi ak bëy yi ak nag yi foofu mën nañ faa julli waaye gëléem moom bari gu mu bari man yu moo tax fuñ ko fu mu fuñ ko yeew mu fanaan fa kenn du fa julli ak ci gannaaw néegu bi yàlla bi muy kaaba gi rawahu ibnu maaja wa tirmisi kooku hadis boobu euh, tirmisi yu ak ibnu maaja ñoo ko solo gannaaw bu ñu waxtaanee ci wàllu église ak place yi nga xamne ci la igil ci la juif yi di jamo yalla ne man nañ caa julli waye nañ ko raxas ak euh, xobi e legi ñu ngi jall ci paravent bi nga xamne kuy julli da nga wara def lolu ci sa kanam pour kuy ca kanam nga xamne so julli du yàqu azatru amama al musalla def paravent ci sa kanam fi ngay yu demee ni ak kees waaye kees gi bu mu nekk loo xam ne dafa taaru walla ab bant wala tabouret wala ges euh, ak yu demee noonu nga def ko sa kanam ci loo xam ne daal day dëggal te jëmmal ne yow mii am na ci loo nekk moo tax nga def lii su ko defee nag kuy romb na rombee ca gannaaw loola na na nga rombe na rombee ca gannaaw ci lépp la loo xam ne samp nga ko fa rek yow mi julli na tolok sa karkanam na tolok sa jëm ji fi ngay julle donte nek na lo xamni euh dafa tollu ni ab lal ab lal bu fekke ne dur lal ba dafa taru lol nga xamni soko tege ci sa kanam di di sa xel man nay dem di xalaat nan way lal bi mom nangam nangam di xalaat ci sa xel non lol day yàq julli bu ko defee bu boobaa bu melee façon melokaan boobu du dagan nga def ko fa kon ñu jëlee ci sabrata ibnu muhammad xalaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne iza salla ahadukum fal yastatir li salatihi mu ne kenn ki yéen buy julli na def saatir ci julli kaayam walaw bi saamin donte gent genn feles la jël def ko ci kanamam pour kuy romb rombee ca gannaawam rawahu ahmad wal hakim jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu taala anhu nee na ibnu qasim sallallahu alayhi wa sallam na isa salla ahadukum bu kenn ci julli fal yej al tilqaa wajhi sayan na def ca kanamam dara pour kuy romb rombe ca gannaaw loola bu ko defee jullim du dagg fa in lam yejji say su fekkee ne amul dara loo xam ne mën na koy teg ci kanamam mu ne fal yan sub azan na samp benn yet fa in lam yëkkun maawa asan su fekkee ne àndu faak yet nag mu ne fal yu xatta xattan na rëdd aw rëdd woo xam ne loolu mooy nekk saatiram wala yadruma marra na yedde yi ba nga xam ne ñi nga xam ne dañuy romb ci kanamam duñ ko lor hadis boobu ahmad ak Abu Dawud ak Ibnu xibaan ñoo ko solo ñetteelu masala bi gannaaw bu ñu bàyyeekoo ci église ak jàngu yi e, ñëw ci li nga xam ne mooy saatir kon tey e, ba tey ñetteelu masala bi ñu ngi dugg ci tahriiru tahriimu muróoru bay na yëddayil musalla xaraamal romb ci kanam kuy julli ba tey mooy na am benn saatir benn loo xam ne daf koy samp ci kanamam bu ko defee luy màndargaal ne kii kat ci julli la nekk moo tax mu def lii kon loolee mu teg ku cay romb na rombee ca kanamam waaye bu mu romb ci diggante eh, ak kiy julli hadis yoo xam ne day tegtale ne day day tegtale xaraamal gu ñu araamal romb ci kanam kuy julli ne kiy julli kon momit war na mu tek fa lu demee ni ab saatir moy paravent lo xam daf koy tek ci karamam non na la bant walau yet walau carton bo xam tarout wala leneen lu don euh ci yene yi ci dess yep man nañ leen fa tek fahani yusri bin saadi gele nañ ci yusri bin saari bin saahid qaala anna usaydu ibnu xaalid arsalahu ila abi juhaym mu ne saydu ibnu xaalid dañ ko yónni ci abi juhaymu yasaluhu masa samia min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj ne lan la dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fil maari bayna yadayil musala ci koo xam ne day romb ci kanam kuy julli fa qaala abu juhaym abu juhaym ne قال رسول صلى الله عليه وسلم ينتبه صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلى مسا علي من بني قمون روم تي كرم كوي جولي لو لكان ان يقف أربعين كون دا نك دي تاخاو نين فوك نين فوك يوي نا يا قمون نين فوك فان لا واخ ولا نين فوك وير ولا نين فوك ات walla ñeen fukki heure wala ñeen fukki minute wala ñeen fukki seconde waaye daal la kaana an yaqifa arbain kon lim bëgg a wax foofu rek mooy fekk kuy julli amula fenn foo mën a jàllee nga taxaw xaar ko moo gën ngay jaar ci kanamam di dagg julli ak taxawaay taxawaay bi ngay taxaw xaar ko lu mu diire diire ah nga taxaw xaar ko moo gën waaye yow itam yow miy julli nanga pexe ba bul ameel àq ci ñi nga xam ne dañoo war a romb euh, ba defu la benn paravent ci sa kanam benn saatir ci sa kanam et nit ñi bëgg a romb te mënuñoo romb boobu it du baax gannaaw loolu ñu ñëw ci zalatul marid koo xam ne dafa feebar te war a julli salatul marid julli ku feebar su fekkee ne dafa waroon a taxaw nga xam ne moom bu taxawee taxawaay bi daf koy dol day dolli feebaram manul daal taxaw toog la man na toog kon sala jaalisan na julli toog su fekkee ne manul julli taxaw manul julli toog mu ne kon nag fa ala janbihi na jullee ci wetam na teg wetam jubale kar kanamam penku rek daldi di julli su fekkee ne mënu ko mënul jullee ñett yii yëpp ñu wax la moom daal mënul taxaw mënul toog mënul jullee wetam mu ne kon na teg gannaawam bopp bi faree gannaaw tànk yi faree kanam mu dal di jublu penku julli fekk mu ngi tëdd taanu julli taanu noonu lañ koy defee mu ne bu fekkee ne nag lott na ci lu demee ni sëgg wala sujjóot mooy rukon ak sujjóot mu ne uum uuma u imaan nay junji léegi na julli julli junji moom daal dafa toog rek taxawut tëddut defu dara waaye toog wala tëdd rek di junji ci kër wana ne mu ngi taxaw bu demee ba toll ci war a sëgg wane ne mu ngi sëgg wane ko gën gën a gën a suufeel boppam comme ça su demee bay waay bay sujjoot gën a suufeel encore eh, boppam loolu mu ngi loolu mooy loolu moom la ñuy tuddee uuma u imaan julli koo xam ne daal dafay junj ba tey war na ki nga xam ne nii dafa am julli yu ko faat mu fay ko julli yoo xam ne nii danga ko waroon a julli te julli woo ko julli yooyu da koy fay waaw ki nga xam ne nag dafa feebar dem dem ba mënatul julli far mu gaañu far mu euh, dee moom faatu na am na ay bori julli léegi bori julli yooyu ay ay doomam yi sës ci moom nañ ko fay wala ay mbokki jege ñaaleem bu fekkee ne koor la bàyyi koor gi bàyyi mbokkam yooyu ñoo koy fay naka bor bo xamne ne daf ko bàyyi bor bobu mbok yoyu ben mom bayina na lum ko fayé wala bayiwul ko nañu set ndax mbok ya am ñuko ca mëna fay ñu fay ko kon wa alayhi qada'u ma fatahu min as-salawat warna ko mu fayit julli yi nga xamne ne faton bu fekkene dafa dis ki mom na def julli gu nekk ca heure ba mu boole diggante tisbaar ak takkusaan ci julli yi passé woon su jullee julli gi teew ba pare mu dal di julli julli tisbaar ak julli takkusaan su demee ba yaakaar ne daal moom nombre nombre bu toll nii li mu ñàkkoon a julli fi mu ne war na jeex mu arrêté da julli rek heure normale bi naka noonu fay julli itam ku amee boru julli du dagan nga naafila na nga fay sa bori julli ba pare bala ngay wut lu demee ni heure supplémentaire da def heure normal boo defee heure te julli yi mooy heure normal bi kon bala ngay def julli naafila da ngay def julli yi nga xam ne nii mooy julli farata yi ba noppi door a naafila du ñu d'accord itam julli yooyu eh nga am julli goo war a fay ne eh taxawal ma la su ma naafila jël jullik naafila gi puusaale ko ci jullik farata ya déedéet loolu it du dagan léegi ñu dem ci jullik musaafir jullik musaafir mooy koo xam ne dafa nekk ci voyage bàyyeekoo ko jëm place wala bàyyeekoo dëkk jëm dëkk wala bàyyeekoo réew jëm réew kooku dafa war a wàññi julli euh, ñaata kilomètre mooy tax mu war a wàññi donte le borom xam-xam yi am nañ ci wuute ñi waxee ni ñale waxee na le bu amee lu mat 80 lu jege 80 vingts kilomètres juróom-ñett fukki kilomètre yoo xam ne ni da koy voyager te voyage bi ngay def euh, farata la waxuñ koo xam ne da ngay dem sabar wala ndaga wala ay musique ak yeneen yu ñu demee e léegi nga ne a ah, loolu farata la ci man kon man damay wàññi julli déedéet na nekk farata comme yow dangay ngay dem ngénte wala takku jabar walla jumaa joo xam ne dañ koy sanc wala yeneen soxla yoo xam ne daal soxnaay farata la soxnaay soxla yi nga xam ne soxlaay farata la bari na kon li ngay voyager su fekkee ne mat na quatre vingt kilomètres dangay dangay wañi sejuli. sa julli motax mupahan, mu ne wa kana safaran mubahan na nek tukki mo xamne tukki mu dagan la falo xasru rubai ila rak'atayn mu ne dagan na nga wañi rakk yi nga xamne ñent ñent la ñent ñent yoyu tisibar ki la bok waye takusan ci la bok ak kon ñu déggee ci ne ndeke timis kat kuy julli ku xam ne dangay tukki tukkim farata wàññi julli it eh, timis moom doo ko wàññi ndeke koo xam ne da tukki tukkim farata war a wàññi ndeke julli suba doo ko wàññi mu ne bu fekkee ne nag da yéene sax ci barab bi nga xam ne diir bi ngay tukki foofu ngay nekk nga nar faa nekk lu mat ñeenti fan ñeenti fan yooyu kon yow da fa def lu mat ñaar fukki julliy farata ñaar fukki julli farata dana la fa fekk mu ne fa innahu yuttimu mun su wusoolahu wala yoxasir mu ne bu ko defee booba da dangay mottili bépp ba ngay dellu si fi nga bàyyee ko woon dootu la wàññi ñeenti fan nga tukki ko muy ñaar fukki julli euh, farata yoo xam ne daf la fay fekk mu ne léegi nag doy na sëkk ñeenti fant yi doy na sëkk mu ne ki nga xam ne nii day voyager te waroon wàññi su fekkee ne dafa bëgg a mottali pour sax gim fa sax wala mu fàtte julli comme julli ku teew te kuy julli julli ku teew moom du wàññi ndeke moom dafa waroon a wàññi fa mu dal di ko fàttaliku ci tukki ma wala mu def contraire bi awil haq si fa alayhi idmaamu bi kulli ma sabax kon war na ko mu mottali ci lépp lu ko jiit la jiitu woon euh, ñeel na kiy tukki mu wàññi euh, kiy tukki bu fekkee ne dafa nar a yàgg day mottali bu fekkee du fa yàgg day wàññi wàññi gi moo gën wa isa darabtum fi l ardi fa laysa aleykum junahun an taxsuru min asalaati suratul maida borom bi subhaanahu wa taala ne bu ngeen di tukki ci suuf si fu mu mënta dox ci àddina bi te tukki ma ngeen di tukki di tukkim farata na ngeen wàññi julli waaw loolu ak jàppandal la goo xam ne yàlla moo ñu ko sarax ku ñu sarax na nga jël ko legi ñu jëm ci julli juma julli juma julli juma mo gëna for julli tisbar euh ngom duñ ko wañi julli tisbar julli tisbar yi aljuma bu fekke ne da nga julli ci sa mbolo ma julli goga ngay julli do ko wañi ñaari rak rek la ñaar rakk la du dagan nga def ko ñeenti rakk du dagan it nga yéene ne yaa ngi julli tisibaar comme yeneen tisibaar yi mais da nga yéene ne maa ngi julli ajuma maa ngi julli jullik ajuma du dagan moom jullik eh, ajjuma googu nga boole ko àndale ko jullik tàkkusaan donte le dafa euh da nga am lu sabab nga warona bolé mom do len bolé kon mom lolu moy salatul jumu'ah ci gattal gën guddul lolu fuf. ñu dem ci walu wetar wetar wetar moy lan moy impair parce que dafa am père ak impair wetar mooy sunna la heure bi nga koy def ci heure julli gexe foo jullee gexe ba pare ba ba ñuy julli fajar foofa dagan na nga def sava ak wetar lu gën a néew ci wetar daal moom benn rakk la euh, bu fekkee safa ak wetar ngay def kooku safa bi mooy ñaari rakka wetar bi di benn rakka lu gën a bëri njëkk balaa nga koy def bu fekkee ne da ngay naafila door koy def da ngay def fukki rakka ak benn fukki rakka ak benn yooyu kon nga dégg ne déggee ci ne ah juróom-ñetti rakka yi yooyu naafila ñetti rakka yi ciy tegee muy safa ak wetar bu ko defee mu nekk fukki rakka ak benn onze rakka mu ne da ngay sëlmal par ñaari rakka yu ne moo gën par ñaari rakka yu nekk rek nga sëlmal mu ne walla mën ngay julli ñeenti rakka def safaak wetar mën ngay julli juróom benn rakka def safaak wetar wala nga julli juróom ñetti rakka def safaak wetar kon loolu mooy onze yi yi mu waxoon fale ci gannaaw mu ne bu ko defee nga daldi di nga daldi di wetar ci benn rakka muy mujjug safa bi mooy nekk ca mujjug safa bi mune wala nga julli len ñetti wala nga julli ñetti rakka yoy juromi rakka wala jurom ñaar rakka wala ñent ñeenti rakk ah, wala lu ko jege ñetti rakka yi bu ko défé muy ak wétar bi da ngay dana dagan gannaaw ga nga julli ñaari rakka tok Euh, aljaisu taxjilul mayitil muslim li dagan ci sang niiw boo xam ne jullit la niiw boo xam ne jullit la sang niiw nag boo déggee ñu ne la sang niiw day fekk niiw bi toll foo xam ne mën nañ ko sang waaye niiw buñ mënta sang dañ koy tiimal dootuñu ko sang dañ koy tiimal Eh, taxsiilul mayiti lil muslim sang jullit sangu niwub jullit ak sangu ko ak jullee ak yenu ko pour yóbbu ko ca cimetière ya eh, ak suul ko mu ne yii yëpp ma tudd fardu kifaaya la fardu kifaaya fardu kifaaya mooy loo xam ne bu ko ñenn ña taxawee ñenn ña bu ñu bu ñu bokkut ca taxawee ba it euh, duñ ca am benn bàkkaar kon bu ñu waxee fardu kifaaya war na ñuy wax lan mooy fardu euh, fardu ayn fardu ayn yi mooy loo xam ne kenn du ko defal kenn léegi naan kenn du wax ne mbooloo mi yëpp dañoo naan nga ne xaar leen man bu ma naanee naanaa laal naanee lal naa naanaa leel naa leen wala mbooloo mi yëpp dañoo war a lekk nga ne xaaral ma lekk man kenn su ma lekkee mun man kenn mu ngi mel ni lekkaaleel naa leen kon fardu ayn yooyu yëpp ay fardu ayn ni la yoo xam ne kenn ku nekk daf la war nga war koo def naka noonu mbooloo mi du ñu bëgg a dem tuuri ndox ni ki saw dem tuuri ndox nga ne xaar leen ma dem tuural leen ndox su ma tuuree ndox rek mu ngi mel ni tuuraaleel naa leen yéen ñëpp déedéet fardu ayni la ku nekk yaa koy defal sa bopp kenn du ko ma mën a defal kenn naka noonu itam julli waaye yii ñuy tudd sang niiw ak sang ak sang ga ak jullee ga ak yenu ko euh, suuli ga yii yëpp fardu kifaaya la sang gi nag dafa am ñuñ koy def lu dul koo xam ne dafa sahid masalan dafa daanu ci toolub xare l'islam waxuñu xeexi xeexi àddina yi nga xam ne moo am léegi e, xool sa réew réew jàmbur rek gis nga fa intérêt dal di dem dal ci kawam waxuñu façon xeex yooyu xeex yi ñu wax mooy xeex boo xam ne kii xeex day xeexal lislaam pour lislaam taxaw ki nga xam ne dafa daalu ci toonu xare lislaam kooku duñ ko sang duñ ko sang it la mu dee rek loola lañ koy suule dana dagan ñu jullee ko ñu ñu suul ko ci melo wa nga xam ne noona la deexee ca na mu deexee rek noonu lañ koy kii càngaayal niiw ci góor ñetti morso baax na yu weex dagan na ba tey bu fekkene ku faatu euh, dafa am sibisi alaaji yu wex yoy ak tube tubéyam yoy ñuy jaay non xamna 6000 francs wala 5000 lay jar mu so ñu solal ko tubéy bi solal ko mbubu bi de nga wut ben morso la xass ko jeexna mu nekk ñetti morso yi bu fekke jigen la nak danañ ko sàngee lu dem ci juróomi morso e, ndiraxlaay li nga xam ne moom lañ koy defal muy sér bi ak muuraay leeg mbubb mi ak ñaari morso su naan nañ ci taxaw ba taxaw bi nga xam ne moom la ilimaan di taxaw pour jullee niiw bi e, bu fekkee ne góor la mu taxawee ca ndiggal góor ga bu fekkee jigéen la mu taxaw ca mbaggam bu ko defee mu def ñeenti kabar premier kabar bi premier kabar bi mu jàng li nga xam ne am na téere yoo xam ne comme boo demee ci Riyadu Salihin daf ni premier kabar bi so kabaree nga jàng fatihatul kitab eh, kon deuxième kabar bi nga jàng allahuma innoo abduka wabnu abdika wabnu amatika fi qabdatika nasiyati bi yadika maadin allahuma innoo abduka wabnu abdika kaana yashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahuma in kaana muhsinan fa sit fi isaanihi wa in kaana muhsinan fa sit fi insaanihi wa in kaana musian fa tajawas an sayiatihi allahuma ixfir lahu waram boobu benn la ci ñaan Eh, xam naa bëggoon nañoo heggali li li nga xam ne mooy ñeneenti ñaan yi nga xam ne moom lañ ciy ñaan waaye heure bi dab nanu kon ñu ngi wax ñu ngi ndar képp fii sunu waxtaan di wax ne li duuf ci nag wi xaju ci cin li te daggu gëléem xaju ci pantre masalan mooy li ñu bëggoon a wax yépp mënuñu ko wax yépp ba mu jeex waaye defe naa li ci gën a am importance dégg nañu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah اللهم صل على